Bonjour, professeur Bambakan. Oui, bonjour. Vous êtes agrégé en physiologie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, à quoi doit-on s'attendre avec l'apparition de ce nouveau variant ici au Sénégal? Oui, écoutez, euh, le nouveau variant quand même est connu pour être euh, euh, beaucoup plus contagieux, même s'il n'est pas prouvé que son pouvoir pathogène est beaucoup plus important. Donc, euh, on s'attend euh, naturellement à ce qu'il y ait euh, plus de contamination. maintenant, c'est quand même l'occasion, encore une fois, ben, de lancer un appel à l'endroit des, populations pour qu'ils sachent que, voilà, les mesures barrières sont d'actualité plus que jamais, parce qu'autrement, nous nous situation, vers une situation qui est euh, beaucoup plus difficile euh, qu'elle ne l'est actuellement. La situation est très difficile aujourd'hui avec euh, une saturation pratiquement des structures d'accueil. Si en même temps ce variant britannique est là, euh, avec euh, toutes les conséquences que cela comporte en termes de contagiosité, euh, vous pouvez comprendre que les lendemains ne sont pas Euh, assez euh, rassurant. Face à ce nouveau variant, quel doit être le discours à présent des autorités pour convaincre les populations ou même les sensibiliser Oui, je pense que le discours euh, doit presque être le même, c'est-à-dire que marteler encore une fois, euh, n'est-ce pas, la nécessité d'observer ces mesures barrières, d'éviter les rassemblements, mais surtout euh, n'est-ce pas, d'accepter euh, cette mesure barrière principale qui est le confinement individuel, qui est le masque. Hein, je pense que euh, plus que jamais, le port du masque doit être euh, obligatoire et chacun d'entre nous doit le comprendre comme cela. Euh, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, ce variant est beaucoup plus contagieux, donc sa propagation est beaucoup plus rapide. Euh, maintenant, certains disent que ce variant n'est pas plus virulent que l'ancien virus. Moi, je ne le pense pas d'ailleurs, parce que je suspecte d'ailleurs que ce variant soit là depuis quelque temps, parce que quand on voit aujourd'hui euh, la forte mortalité euh, qui est observée depuis quelque temps, euh, on est en droit de se poser la question de savoir si c'est le même virus où c'est pas un virus qui est plus virulent. Euh, les mesures barrières doivent changer ou bien Écoutez, c'est exactement les mêmes mesures barrières hein, qui permettent de lutter contre ce variant, c'est-à-dire euh, la distanciation physique, le port du masque, éviter les rassemblements et puis euh, faire très attention quand on est dans, dans les transports publics, au marché. Euh, porter son masque, c'est exactement le même mode de transmission. À partir du moment où c'est le même Euh, donc, c'est également les mêmes moyens de prévention. Et ces moyens de prévention restent et demeurent en fait le respect des mesures barrières. En Europe, on parle même de 2 mètres de distance. Est-ce que c'est possible de le faire ici au Sénégal ben Écoutez, c'est très difficile de faire 2 mètres de distance. Bon, même en Europe, on parle maintenant de systématiser le port des masques FFP2 qui coûtent beaucoup plus cher. Euh, mais moi, je reste convaincu que euh, même les masques en tissu permettent Euh, plus ou moins de juguler en fait, euh, disons, la transmission euh, par ce virus. voilà, le masque en tant que tel évite la projection des postillons et c'est cette projection de postillons qui est responsable des contaminations. À partir du moment où chacun d'entre nous accepte de porter le masque, bien, bien entendu, euh, on va, euh, si, vous, voulez, rompre la chaîne de transmission du virus. Maintenant, ceux qui ont les moyens d'utiliser des masques beaucoup plus euh, importants en termes de protection, comme les FFP2, mais peuvent l'utiliser. Mais euh, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de, de, paniquer au point de changer littéralement, si vous voulez, les moyens de, de, de prévention dont on disposait jusque-là. Des moyens en tête desquels, encore une fois, nous avons surtout le masque Euh, qui doit être porté par tout le monde, surtout dans les lieux de regroupement. Professeur, dans les autres pays, on parle de l'inefficacité des masques artisanaux, très utilisés ici au Sénégal. Qu'en est-il vraiment Ben écoutez, moi je ne suis pas de cela qui pense que les masques en tissu sont inutiles. Je ne le crois pas. Bien entendu, il y a des degrés de protection. Il y a une échelle dans, dans la protection conférée par ces pour les masques euh, chirurgicaux, bon, on parle protection de l'ordre de 92 à 95 Pour les masques on parle d'une protection qui tourne autour de 70 Mais moi, euh, je reste convaincu que ces masques pas qu'on qu change de paradigme et qu'on s'achemine dans des voies sans issue. C'est-à-dire si on veut imposer aux populations des masques dont ils n'ont pas forcément les moyens, et eh vous voyez ce que ça peut faire. Et encore une fois, ce qui était connu jusque-là, c'est que le masque, comme je l'ai dit tout à l'heure, évite la projection de position. Parce que même si vous êtes avec quelqu'un, s'il était possible, par exemple, d'être dans un groupe où personne ne parle, par exemple, mais ce serait même un moyen de rompre la chaîne de transmission. Donc, le fait de mettre son masque évite justement cette projection de postillon qui peut infecter son entourage immédiat. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour... Euh, la systématisation non seulement des, des masques conventionnels, entre guillemets, bien entendu, ceux qui ont les moyens d'acheter ces masques doivent l'acheter, mais ceux qui ont les moyens d'acheter des masques en tissu, mais effectivement, pour porter ces masques en tissu. Merci beaucoup, professeur en physiologie à la faculté de médecine de l'université Cher Ante Diop de Dakar. merci beaucoup. asalaamaaleykum professeur Bamba Kane. maaleykum salaam. yow da nga nekk agrégé ci physiologie ca euh, faculté de médecine bu nekkee ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru. loolu lan la ñu war a xaarandi ci euh, li ñu gis variant britannique bi fii ci réew mi Sénégal. waaw variant britannique boobu noonu. Euh, liñ ci xam mooy que ni variant la boo xam ne moom moo gën a mën a gaaw a wàllaatee que virus bi fi nekkoon. Euh, loolu la borom xam-xam yu bëri wane mais wane wu ñu ne que ni virus boobu moom moo gën a soxor euh, virus bi fi nekkoon loolu nag euh, am na ci ànd am na ci àndul am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ni mu gën a gaay wàllaatee noonu la gën a soxore bon man nag xaw naa xalaat loolu dama xaw ragal ne sax variant boobu est-ce que dugg fii bu yàgg tuuti ñu soog a ndaxte bu ñu gisee virus bi jamono yi nii li muy faat si ay doomu aadama ci suñu dëkk bi dafay xaw a mel ni que ne virus bi fi nekkoon ñu gisoon ko ci première vague bi ak virus bii ñu gis ci deuxième vague bi eh, dafa mel ne wuute na bii moom moo gën a mën a lor bii moom moo gën a soxor tukki. ci noonee sax lan moo war a nekk taxawaayu autorité yi ngir mën a delloosiwaat xelu population yi ba ñu mën a gëm li nga xamante ni moo di feebar bi. waa effectivement renforcer euh, surtout sensibilisation bi insister surtout ci communication bi. Euh, ndax xeex bi léegi euh, dañ ci toll foo xam ne nekkatul euh, way docteur ñoo koy gagné wala état bi moo koy gañee xeex bi citoyen sénégalais bi ci boppam bu ci nekk moom moo war jël xeex bi def ko xeexu boppam te xeex bi benn arme la ñu am ba léegi nii te arme boobu moom moo valable mooy respecter mesures barrières yi te bi ci jiitu encore une fois mooy nit ñi takk seen i masque bu nit ñi nangoo takk seen masque mën nañu continuer suñuy activité mën ngay dugg ci transport en commun yi mën nañu dem marché mën nañu def leneen ak leneen mais bu ñu takkee masque yi mën na wàññi bu baax a baax law bi nga xamante ne nii virus bi mu ngi koy law ci biir euh, askan bi euh, d'autant plus que virus bii nii moom moo gën a gaaw mën a wàllaate que virus bi nga xam te ne moom moo fi nekkoon. gis nañ léegi ni variant bi waxtaanee nañ ko tey ni dugg na fi dañoo war a soppi euh, mesure barrière yi wala nuñ ko war a defee léegi. non mesure barrière yi moom benn mesure barrière la rek ba léegi mooy euh, mesure barrière yi du changé wul ah, xëy na am na ci yenn dëkk yoo xamante ne ñoom ñu ngi imposer nit ñi sax ñu changer bu masque yi ñuy takk ah mu mel que ni ñu ngi leen di imposer ay masque FFP2 mooy masque yi gën a diis bon di imposer nit ñi à distance bu gën a yaatu de deux mètres wala lu ko ëpp mais man li ma jàpp mooy bu nit ñi nangoo takk masque yi rassemblement yi nga xam ne mën na ñàkk ñu bàyyi ko fépp fooy dem te xam ne foofu mën naa ñàkk aussi nga toog sa kër même conseil yooyu ñu doon joxe depuis première vague yi conseil yooyu noonu ñoom ñoo nekk ba léegi nii en en vigueur donc gisuma ne dañuy changer totalement Euh, mesures barrières yi ñu doon jël euh, li am solo kay mooy naka la ñuy def ba nit ñi respecter mesures barrières yooyu noonu parce que foofu la problème bi nekk nit ñu bëree bëri nangu ñu respecter mesures barrières yi ñenn ñi euh, xëy na sax ñoom gëmuñu ne feebar bi mu ngi ci dëkk bi foofu nag fa la communication bi war a insister pour que nit ñi xam ne situation bi situation bu xaw a doy waar la. ñu nemmeeku ne ci yenn ci ay réew jàpp nañ ni masque yi ñuy gis ci réew mi sénégalais yu bëri di ko jëfandikoo muy masque tissu yi jàpp nañ ni foofu amatul benn efficacité. est-ce que loolee a xalaat fii si suñu réew. waaw bon man personnellement xalaatuma loolu parce que man dama gëm ni euh, masque moom li ci am solo mooy ñu takk ko ak masque bu mu mënti doon. Euh, li gën nag masque yi nag dañu am ay degré de protection yu bokk loolu moom dëgg la euh, par exemple gis nañ que ne masque FFP2 moom pratiquement dina la protéger à hauteur de quatre-vingt-dix-huit pour cent masque chirurgicaux yi wax nañu quatre-vingt-douze ba quatre-vingt-quinze cent masque tissu yi nee nañu à peu près dina la protéger à hauteur de soixante-dix moom la ñu xam dëgg-dëgg mooy masque bi dëgg-dëgg njariñam nekkul sax di protéger ki ko takk njariñam mooy ki ko takk bu ko takkee lor yi nga xam ne mooy génn ci gémmiñam ak ci bakkanam di génn ci biti mën a wàll nit ki lor yooyu dootul génn donc bu ko nekk takkee maskam ba nga xam ne benn lor dootul jóge ci kenn di génn ci biti bu yàggee chaîne de transmission bi dina dina wàññeeku bu baax a baax donc man foofu laa gis ne moom mooy intérêt masque bi mais bu ñu bëggee imposer nit ñi aussi ay façon masque ne amuñu moyen wu jënd masque yooyu noonu ndax ñun waxtaan boobu noonu euh, mën na indi sooxee ah, jàpp naa ne ñi am possibilité jënd masque conventionnel yi nañ ko jënd mais ñi nga xam ne nag ñoom ñoom seen doole mu ngi toll ci am seeni masque tissu di ko takk di ko fóotaat di ko takk euh, ñooñu tam buñ leen xañ loolu ndaxte bu dul loolu mën na indi jafe-jafe. jaajëfal naa la professeur Bamba Kane. jërëjëf. ma fàttali ni agrégé en physiologie ca faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. jërë ngeen jëf.